ay xibaar yi yees ci lu jëm rek ci ñi nga xamante ne si ñoom lañ daal di njott ne ñoo daal di faat kookee di Aziz Dabala mu nekk les présumés meurtriers ñoom ñu ne nekk procureur bu Pikine ni Guédiawaye daal nay daal di sàkku rek ñu daal di amal li nga xamante ne si nag moo ñu daal ci ubbi ab information judiciaire contre ki nga xam ne nag moo di Mamadou Lamine Diaw ak sis autres personnes yi nga xamante ne si daan na leen daal di tuumal ca mbir yooyee ba tax sax ñoom ñooñee nag mën nañ leen daal di placer sous mandat de dépôt ki nga xamante ne si nag moo di Nabou Leye moom nag daal nay daal di weddi rek xam leen sax nekk moom moomee nag laale wu ci lu jëm rek ci faatu ki nga xam ni moo di Aziz Dabala wante mu mel ni sax nag loolee du tee rek moom mu daal di bokk ca mesure ya nga xam ne jël nañ ko ci euh, six autres personnes ya nga xamante ne si ñoom la ñu daal di jot rek ne ñoom ñoo daal di faat ki nga xamante ne wala sax laale lañ ci lu faat ki nga xam ne nag moo di Aziz Dabala ba tax nag parquet bu Pikine Guédiawaye Aïda Nay daal di demande ñu daal di amal ab ouverture d'une information judiciaire wante ñu daal di placé sous mandat de dépôt ñoom sept suspects yooyu ci li nga xamante ne si nag euh, moo di association de malfaiteurs ak li nga xam ne nag moo di assassinat acte de barbarie wante it vol aggravé wante li nga xamante ne si nag moo di complicité de ces infractions ba tax ñoom ñooñee nag seen soox daal na daal di dépendre rek ci juge d'instruction bi nga xamante ne si moom nag wax na ci daal di prononcé wu jëm rek ci li nga xamante du procureur kooke di Mamadou Lamine Diaw ak ki nga xam ne moo di Serigne Sarr Oumar Gueye Assane Diaw ak Ousseynou Diaw ak nga xamante ne si nag moo di Nabou Leye ñoom la ñu daal di jàppee comme ay suspect rek ñoom ñooñu daan nañ leen daal di woon defeexe ni ki démb devant le parquet bu Pikine Guédiawaye daan nañu woon daal di bénéficier wu ni ki démb rek retour de de parquet wante ni ki tey rek ci mercredi bi ñoom ñooñu sax nag waxa daal di jàkkaarloo ki nga xam ne nag moo di juge d'instruction bi ak nga xamante ne si nag moo di Fallou Diouf moom moom moom ma nekk nga xam ni moom la ñu di mujjee teg loxo d'après rek information yi nga xamante si nag na koy daal di joxe ba daal di koy jébbal ñi nga xamante ne si nag ñoo di waa DIC moom Nabou Leye sax nag mu ngi persister rek di xamle rek ni innocent la laalewul rek ci mbiru si nag moo di génn àddina kookee nag di Aziz Dabala daan nay daal di xamle musta nekk complice benn crime rawatina nag motul bi nga xamante ne si nag moo di xaritam nekk papam te ñëpp daal ko koy xamee si nag ñoo di enquête enquêteurs yi ñoom nag ñu ngay daal di estimer rek réquisition bi nga xamante ni si Sonatel daal nañ koy daal di def ginnaaw ba ñu daal di localiser rek téléphone ko kee di Nabou Leye ci zone de crime nga xamante ne si ne fa la ñu daal di faatee Aziz Dabala ak Wali boo loolee sax nag ay booxu minuit mu mel ni sax nag loolee nag lañ ko daal di téewee wante it moomu Nabou Leye nag mu ngay daal di rejeter yooyu les accusations di xam le nag ni moom moom moomee laalewul benn yoon ci lu jëm rek ci faatu bi nga xamante ne si nag moo di Aziz Dabala ak Wali thank you